waa kii dafay am ñaari laaj yu mu doon laaj xam naa moom boo demee ab tukkikat la ndax nee na su fekkente dangay da ngay tukkikat te am ñaari soxna te réew ma waaw am ñaari soxna te réew ma nga jëm yoon bu mayu la nga yóbbu fa ñaari soxna ndax lislaam may na la nga yóbbu kenn ki booy dem wala déet ak nee na soo amee sa ñaari way jur yu fi jóge boo jullee ba leen ñaanal ndax man nga leen boole ñaan gi wala ak bii mu ne subhanallah wa bihamdihi ak subhanallah alazim daf ko yàgg dégg ci say waxtaan muy laaj njëriñam salaamaaleykum ci tukki su amee ñaari soxla yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan def bu daan tukki ñu wax alqura tirage au sort la daan def ku bant bi dal nga dem ànd ak moom ku bant bi dalul nga toog kooku mooy sunna nit ki nag mën na am ay ay raison maanaam daal ay ay asbaab daal ay sabab yu tax mu dem ak kii waaye li ci gën a rafet te gën di maandu mooy bu fekkee ne deful tirage au sort itam mu wax leen ñoom ñaar ñëpp waxtaan ceeg ñoom ba ki ci desit d'accord ndax ñoo yem xaq bis bañ ko mayee rek te fekk kii maye woon nañ ko lu mat ñeent fukki at ñoo yem xaq ñoo yem xaq lu dul fi ñu wuute xaq mooy boo leen di xotti lii rek kii njool lool kii gàtt kenn ku ne lu ko jot rek la la yoon sant ci moom <laughs> bu kii dëkkee ca gannaaw njaañ njaga nga xam ne yëre yi ñuy sol foofu bokk la kii nga xam ne mu ngi dëkk Paris wala mu ngi dëkk Dakar wala Gorée yi muy sol bokkuñu kenn ku ci nekk fa mu fa fa mu nekk la ñuy sol loola nga ko war loolu mooy li la war mooy xaq nga xam ne boo ko deful mën ne la ko topp waaye loolu war léegi daal kon nit ki buy dem bu mu dekk jekki rek daal di ne cëfit benn waaye kenn nit kenn ki rek daal di dem ak moom bañ wax ki ci des dara jaaduwul de jaaduwul de na waxtaan ak moom ba d'accord ci mu yëgal ko ko bu mënu la euh, tirage au sort itam nga def loolu dégg ma na daal ba nga xam ne du dem ci tàngu xolu keneen ki wala mu ne ko damay def li ma neex wan ko ne damay def li ma neex rek jubul de te yomal xiyam bala ngay si siraat àq jooju da nga ko ko fay de bu la ko baalul bu ko baalul da ko ko fay ndax dafa war al qisma al qisma fil xam ngeen ko yéen jàng arab bi <laughs> ak seen bàyyi ko. nga xamante ne ñaari juróom dafa faatu. waaw ba tey bokk na ci li waroon waxtaane ci waxtaane bi ñu tàmbalee nit ki bu amee doomam yar ko yarul islaam jàngal ko alquran jàngal ko lépp ci lislaam bu faatoo mu di ko ñaanal ndax dara lu ko fay fekki te la mu yóbbu du xaaja doy sallallahu alayhi wasallam misaale ne ko nag ci lab ci géej nga xam ñoom ay pexem jeex na day xaar rek ku ko suqali si dundam jeex na day xaar rek ku ko suqali si ki ne ci bàmmeel bi day xaar rek ku ko ñaanal ñaan nga fekk ko jëriñ ko waaye moom ci boppam ay jëfam lu dul li ñu tuddee ak sadaqatu jaariya yi juróom benn yooyu la lool rek yi di ko fa fekk rek lay jëriñ dana jëriñ néew bi dana la jëriñ yow itam te dana la fàttali itam ne yow mii kat da ngay ba mu dem da nga fa jëm da nga fa dem bu defee kon am na njëriñ lool doomu aadama bi nag moom ñaari waa waajuram dañoo am xaq ci moom waaye xaq yaay moo gën a diis lu ko waral yaay moo gën a sonn ëmb bi metti na jur bi metti na boot bi metti na nampal bi saw mi la ca des yi jooyu guddi yi lépp bare yàq sa nelaw xaq yooyu lu diis a diis a diis la nit ki du ne ah sama yaay moom it dañ ko koo defaloon ah, du man rekk daal bokkuma caa ko gën ndax moom xamuloo lu mu fayee yaayam kon loola mënuloo ko sukkandikoo naan ku nekk ku nekk koy def c'est naturel déedéet nga fàttali ko xaq jooju kon nag eh, doom ji bu leen di ñaanal yaayam lay lay njëkkee soog a ñaan teg soog ci papa baayam bu fekkee ne daf leen boole ñaan ngi mën ngaa boole ñaan junni nit wala téeméeri junni nit jullit ñëpp mën nga leen boole benn ñaan waaye ki ngay njëkk a tudd mooy sa yaay sharia dafa def sax ne boo tukkee boo ñëwee indi li ñuy wax hadiyatu surut maanaam nga indi charité booy jox xale yi ñu jigéen ñi ngay njëkk a jox soog cee teg ñu ba l'islam dafa àtte lépp ba bàyyiwul dara dara dara dara jëmm ji nga xam nag moom lañ ne fab na tànkam teg ci sunna mooy kii xalaat yooyu yëpp di ca jaar di ko jëfe